ci jataay yi nga xam ne daf ko jagleel laaja ki tontu te tey jii doon ñaareelu jotaay ci biir jotaay yooyu ñu fas yéene ci ànd ak sëriñ Cheikhuna Mbacké Abdou Wadoud moom yàgg naa taxawee jataay bu mel nii ci weeru koor yi weesu kon tey jii moom la ñu fas yéene àndal jataay bi mu indi ay leeral ci laaj yi nga xam ne rod na fi bayiko ci ñi nga xamni ñoy top jotaay kon serigne Cheikhuna ñu bàyyi nga nuyoo ñu dooro sóobu ci liggey bi bismillahir rahmanir rahim alhamdulilahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh serigne Cheikh noo ngi lay dal nuyoo di nuyu bokk yépp ñi fi taw ak ñi déglu fuñu mën di nek di ñaan weeru koor wi yàlla defal nu jàppandal ba nu defe ko ni mu ko bëggee di ko ñaan itam lim ci diggee ci yiw wépp mu defal na ko di ko ñaan ci jotaay bii itam mu defal nu ci jàppandal ba nu wax ci lu jub te am njariñ defal nu jàppandal itam ba lu am njariñ ci waxtaan wi ci wax ji nu man koo jariñoo jërëjëf sëñ Cheikh jërëjëf sëriñ ci nuyu bu am solo bi kon ñu daal dugg ci laaj yi kii day laaj mu ne koo xam ne da doon julli julli farata fàtte li xaam kooku luy atteem ci lislaam waa sëriñ Cheikh li dëgg-dëgg bokkul ci julli gi bokku ci te it du tam lu munta ñàkk du faratale farata mooy lu munta ñàkk waaye lu ñu bëgg la sunna la kon luñ ñu luñ sàkku ñu def ko la bala noo julli waaye nag du farata te duggul ci biir julli gi kon mooy ñàkk koo def du yàq julli gi def ñàkk koo def ci tay ko sax du yàq julli gi sàkkantuma nag koo xam ne da ko fàtte kon dara newu ci te yàggale julleem rek hmm. jërëjëf Serigne Cheikhouna kii tamit day laaj mu ne jëmm ngi nii joo xam ne danay julli julli juróom yépp dana ko julli waaye ajjuma la ci dul boole muy laaj kooku luy àtteem ak kooku de dafa am luñ ko digal moo def ko am luñ ko digal defu ko kon daa def lenn ci liñ ko digal bàyyi lenn ci liñ ko digal julli yi farata ajjuma ci la bokk kon ku dul julli ajjuma matalul julli farata yi war di julli julli ajjuma ci boppam nag bàyyi ko yonent bi sallallahu alayhi wa da cee tëkkoo da cee tëkkoo dafa wax ne ñiy bañ a julli ji ajjuma buñ ko bàyyiwut danañ dem ba yàlla sakk sakk seeni xol ba lu baax lu ca mën a duggat loolu lu jara lu jara moytu la am na feneen fu muy waxee ne ñi bañ a julli ji àjjuma yayoo woon nañ yayoo woon nañ ñu fekk leen fañ nekk taal taal seeni néeg ci seen kaw fañ nekk bañu a julli si àjjuma moom yonente bi sallallahu wax na ne demoon naa bay xalaata bàyyi kenn mu jiite man ma dem ca ña julli si wut fekk leen fañ nekk taal seen néeg yi ci seen kaw loolu waxin la daa jublu ne ku leen defoon loolu itam yayoo nañ kon liñ def lu reey la loolu buñ ñu leen ca defan loola it yeyoo nañ ko ci mbugal kon lu jara moytu la kuy julli na julli julli jurom waaye ne julli aljuma ndax farata la ni julli jurom nekkee farata te gis nañ tëkk yooyu nga xam yoonte bi da ko jeglel ni sagane julli aljuma suñ cheikh ahsanallahu ilaykum ki de laaj mune ndax yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam daana jeexal kaamil bi ci naafila gi mu daan def ci biiru weeru koor daana jàng kaamil ba mu jeex ci biiru naafila gi mu daan def ci biiru weeru koor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci weeru koor daawud naafila nii nu koy defe nii dajaloo dajale mbooloo mi jiite leen loolu daawu ko def danoo dañoo wax ne mas naa génn ci weeru koor fekk mbooloo mi ci jàkka ji mu jiite leen la def ko ñaari yoon yoon yu néew daal la ko def daldi bàyyi génnatul ne leen na ku nekk di jullil boppam rek ndax da doon ragal ñu farataal ko ci ñoom te kon dana diis ci ñoom kon mbiram noonu kon moom defu ko ay yoon yu bari ba ci mën a wàcce alquran waaye ay ñaari yoon ñett la ko mas a def daal di koy bàyyi ginnaaw bi la ko saxaaba yi tàmbalee def di daj dajale nit ñi am ku ñëw jiite leen ci weeru koor ci naafila mu tàmbalee foofu ba nëgën nag jamono Seydina Omar la bi Seydina Omar nekkee xalifa booba la ko digle moom ñuy daje ca jàkka ja di naafila wa yonent bi daawu ko def kon daawu ci daawu ci wacc alquran ndax daawu ko def ci niñ koy defee ni ginaaw bi nak biko sahaba ay yi ci lañ dem ba di ci jang alquran kamil bi yépp ndax weeru koor alquran la kon ku ci naafila di ci jang kamil bi yépp lu jaadu la lu deggo ak weer wi la hmm. jërëjëf serigne cheikhuna kii day laaj mu ne lan mo war ko xamni dafa tawat tawat jo xamni ni ragal na alkane dab ko ci bu fekke ne dafa wor mune ndax kon man na dok wala bok day lele wala numi def aha ki wéradi wéradi gu gu takko ak moy wéré di go xamni sentu wuñ mu wér di gi takko ak nit gok sentu wuñ mu wér di gu mel bu fekke wor dana tax mu yok bu fekke ci lolou lay am rek dana tax wëre digi yok gëna met gëna tar borom sañna baña wor waye wëre waaye gu di doon mo xam gu gu gu sax la mo xam gu saxut la bu aggon ci ñu ragal ne borom bu woré mom bakkanam xaj na ci bu baba duñ wax ne sañna baña wor waye sañu ta wor lañuy wax da war baña wor bu fekke bakkan ba jeexaj bu agul ci bakkan nak waye day tax mu gëna metti wala bu dee guñ mu wër day tax mu yeexa wër kokam dañ nan sañ naa bañ kon ci am wéradi gu ak mom ta bu woré wéradi ga yokk sañ naa baña wor waye koku bu worut dañuy ne ngàntam mu teggiku ndax ku worul ngir ngant bu ngant la teggi ko day fay kii nag ngàntam séentuwuñ mu teggi ko moo tax dañ naan kon day bañ a woor te bu ne mu sarxe mu sarax nit lu ko mën a suur buñ koy natt borom xam-xam ñii dañ ko dañ ne liibar ak genn wàll liibar lay doon moo tollook li ñuy wax mudd am ñu ne ñaari mudd lay doon mu doon tolloog kon kilo ak liibar kilo ak liibar daal ci lañuy ñuy gën a dunde ca béréb bam nekk bis bu ne bu mu wóorut bu ne na ko sarax ku ko ajoo mooy képp koo xam ne am na ngànt lu dul teggi rek noonu lay def képp ko am ngànt lu dul teggi ko rek noonu lay def saa bu bis bu mu wóorut bu ne day sarxe sarxe liibar ak genn wàll liibar wala kilo ak liibar ci lañuy gën di jëfandikoo ci wér bam nekk sëriñ Cheikh. jërëjëf sëriñ Cheikhuna kii dee laaj mu ne salaasata quru'in ji yàlla wax ci alquran lu muy tekki salaasata quru mhm. yàlla ci alquran day wax idda idda jigéen joj danay gis baax dana koy gis jigéen ju danay gis baax te tollul ci ab diggante jigéen ju noonu lay wax ne buñ ko bàyyee buñ ko fasee iddaam ji muy jàpp wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru baatu quru boobu nag baat bi ci arab day firi yaar yu safaanoo yaari safaan lay firi day firi baax di fiire laab itam day firi baax di firi laab ñaari safaan lañ ñu ne fii nag lan lañ ci jublu ndax mbaax lañ ci jublu wala laab lañ ci jublu wuute nañ ci am ñu ne mbaax lañ ci jublu baax ay baax am ñu ne ay laab lañ ci jublu waaye e, ku mel ne at-Tabari al imaamu yi nga xam ne moom la ñuy tuddee sayyidul mufassirin moom laab la ko jàppe ay laab andi ne tegtalam yoo xam ne yanu na maanaa jàppe gi laab ñun fa lañ gën a jàng jëm jàpp ne kon ñetti laab lay doon mooy ki ñu fase kon ñetti laab bu bu bu ko amaatee ba mu jeex ci la iddaam di jeex mooy laab miñ ko fase laab moomu bu jeexee day gis baax bu baax ba jexé mu labat mu ñaarel bu jexé mu gis baax bu baax ba jexé mu labat ñettel yoon bu lab bo ma jexé bam gis baax rek fofu la iddaja di kon ñiko firé lab non lañ koy doxale am ñeneen nag ñu ko ay mbax la waaye lab ji dal mel né mo gëna mo gëna dëgër hmm euh ki dé laaj mu né ndax ko xamné dafa am tawat ju ko dal ba am tuur loo xam di génn te du ko mën a téye mu ne kooku ndax sañ naa jiite koo xam ne ni loola dalu ko waaw loolu de mooy koo xam ne rek luy yàq njàpp lu yàq njàpp day xew ci moom te du ko mën a contrôler du ko mën a contrôler mooy lu yàq njàpp day ci moom ci anam yu jege yoo xam ne daal jaaduwut dëppowut ak ni yàlla binde nit te ca man dara kooku lañ naan dafa am salas mën naa doon tuur ndox mën naa doon yeneen yi yàq njàpp itam lu mu ci man di doon ci ngër mi dañ naan dañuy sib mu jiite dañ koy sib bu ñu nee sib nag mooy bu ko defoon tam dana baax waaye mu bañ koo def moo gën mu bañ a jiite moo gën ndax imaam la ca gën la ca gën mooy du yées ñim jiite du leen yées ci genn anam bu dee ñim jiite ñu mën a taxaw lañ man di sëgg ka sigg ka jóg ka toog kon imaam itam na man loola bu dee ñim jiite dañoo doon ñu wér imaam na wér loolaay gën bu dee jiite dañoo doon ñu wér ci wàllu googu mën a téye seen bopp di yor seen laab ba jamono ji yanu maanaa rek seen laab door a toj kay jiite na mel noona mooy kon li gën mooy ilimaan bu yées ñamu jiite ci genn wàll wàll gi nag yées la ndax ki loolu dal jamono yi muy julli njàppam mi ngi yàqu mi ngi toj dañ koo may rek ndax ngànt dañ ko ko may waaye njàppam mi ngi toj kooku nag moo yées ki nga xam ne jamono yi muy julli njàppam tojut muy ñu topp ci ginnaawam kon li gën mooy moom it mu mu bañ a mel noona moo tax ñu sib ko dañuy sib kon koo xam ne dafa am loolu ñuy wax salas dañuy sib mu jiite ñoo xam ne amuñ loola suñ cheikh buñ ne sib nag mooy dana wér waaye bañ koy def moo gën waaye bu ko defoon tam julleem moom wér na julli ñu topp ci ginnaaw itam dana dana wér hmm. jazakumullahu xayran ci tontu yu leer yi kii dee laaj mu ne ndax ngoro ci bëccëgu weeru koor dagan na wala dëgganut ngoro de baatu wolof la moom arbaatu arab bi mu wax xitba la wax xaw ma dëgg xaw ma dëgg-dëgg mooy ngorom déet daaw ma ko firee ngoroman waaye lu man di xew mooy daal ki nga xam ne euh, labat xëy na la gën a jege ci wolof labat labat euh, labat mooy kon ku bëgg ku am jigéen ju bëgg a def soxna yëgal ko ko yëgal koy kilifaam yëgal leen ne dafa am yéene jooju loolu mooy labat loolu nag xawma weer wuñ koy wuñ koy bañe weer yépp lañ ko sañe weeru koor ak lu dul weeru koor weeru koor ak lu dul weeru koor lañ saña defe labat waaye nag mooy loolu du leneen mooy loolu mooy ki am yéeney takk jigéen sàngam mu yëgal ko ko yëgal ko ay kilifaam xamal leen ne am na yéene jooju ngir bu ci keneen bëggee wax ñu xamal ko ne am na ku ci wax ñaan seegut waaye daal joxe na doom ngir ñu di ko nekk loolu mooy labat loolu weer wu nekk lañ ko mën a def sëñ Cheikh euh, kii day laaj mu ne ndax ab kaamil mën nañ koo dugal ci jiba mhm, kaamil muy poche jiba mooy poos kaamil manees na ko dugal ci poos waaye am na poos yooyu waree ko caa dugal ndax kaamil daa am worma lépp loo xam ne anam goo xam ne buñ ko ne tegee day mel ne da koy ñàkkal worma waree su ko tegee ca anam googa loolu moo tax kenn wër jël ab kaamil di teg ci kawam leneen beneen téere bu mën di doon ab alxuraan kenn wër teg ci kawam beneen téere bu mën di doon wala meneen mbir mu mën di doon loolu war maam moo tax ci loolu itam bu dee jiba joo xam ne jiba ju ci kaw ci dënn bi ci misaal jiba jooju ku ci def kaamil dana ànd ak war ma waaye jiba ju ne ci wet ku ci def kaamil mën na caa toog day féete suuf féete suuf googu àndut ak war ma lool rawatina nag bu da yenn tubay yi nga xam ne ñi nga xam dañuy am tubay yu am jiba yu féete ginnaaw jiba yooyu xam nañ ne ku ca def alquran loolu àndut ak war ma kon bu dee jiba ju ne ci dënn daal moom ku ci def ab kaamil du wàññi dara ndax dàqontewut ak war ma ji mu yayoo hmm. ak bu dee jiba joj ku ko ca defoon mën na caa toog boobaa nag waru ko caa waru ko caa def bu àggee ci mun koo ñàkk ànd ak moom na koo téye ci loxoom kon na ko yor ci loxoom waaye bu nga ko def ci jibo jooj mën na caa toog bu dee jibo yi dënn nag nga xam ne moom dana sàmmanteeg war maam dana ko ci mën a def sëriñ Cheikh jazakumullahu xayran kii day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne dafa tukki yéene woon a wàññi ci julli gi far yàlla dogal matal mu mel ni dafa bàyyi lam yéene woon muy laaj lan mooy àtteem waaw kii bëggoon a wàññi saña wàññi bëgg wàññi waaye far matal kooku dañ naan day mel daa yokk ci julleem daa mel ne daa yokk ci julleem kon mooy day sujjóot ginnaaw bu sëlmalee ki nekk ci tukki sañ a wàññi yéene wàññi far matal kon day sujjóot ginnaaw bu sëlmalee ndax dafa mel ne ku yokk ci julleem sëñ Cheikh kon day sujjóot ginnaaw bu sëlmale hmm. ahsanallahu ilaykum kii day laaj mu ne lan mooy atteb koo xam ni dafa woor ba noppi di sàcc di jël yëfi jàmbur ku woor di sàcc mooy rek ku woor di def ak moy gu mën di doon koor gi luñ ko digal la def na ko mooy gi luñ ko tere la def na ko mooy kon am na ndigal lum def am na luñ ko tere itam lum bàyyiwul mooy fële topp na fa fee mooy na fa li ci dolli nag muy topp gii di woor moom bokkaale na ci topp gi it bu wooree mu moytu lépp lu lu jaaduwut lool bokkaale na ci koor gi liñ sàkkuwaale ci moom du du ñàkk lekk ak ñàkk a naan rek ak lu mel ne yaar yooyu waaye dañu sàkkuwaale ci moom itam diir bi muy woor mu ci moytu lépp luñ ko daan tere naka jekk kon bu dee woor tey def luñ ko daan tere naka jekk kooku li ñuy woor moom mooy njariñ li mu war a jële ci koor gi yépp du ko ci jële yool bi mu ci mënoon a jële bépp du ko ci jële kon kuy def luñ ko téré ci biir wéru koor fekk mu wor ak kooram dana manki lool ab yool man na dem sax ba ba ñak yool bép ba ñak yool bép du tee nak koor gi wër koor gi wër moy kèn du ne ko na nga fay kèn du ne ko na nga worat nak wor na waye da ca bolé lu mu ñak mu ñak yool bam mu warona am jam ca waroon a njariñ lam ca waroon a jële moo tax ba woor war naa góor góorlu it ci moytu lépp luñ ko daan tere naka jekk ndax def gam koy def mën na koo xañ lu bari ci ab yoolam wala mu xañ ko yool bépp sax mën na koo xañ it njariñ li mu waroon a jëlee ci koor gi ndax bokkoon na ci njariñ li ñu jëlee ci koor bu bu yool bi jàllee mooy li muy def ci nit ki ci boppam yàlla dafa wax ne bi muy wax ni mu farataale koor dane dama ko farataal ci yéen ak ñi leen jiitu woon ngir ngeen mën caa jële ak ragal yàlla ragal yàlla mooy di def ndigal yi di bàyyi tere yi kii nga xam ne nag mi ngi war ba nopp moom di def defi tere kon mooy day mel ne moom fostu yéenee jële ak ragal yàlla ci koor gi ndax sabab lu ko kon kuy woor ku ne war naa góorgóorlu ci moytu liñ ko daan tere naka jekk lu mu ca def nag du yàq koor ga waaye nag dana wàññi yool ba mën na ko xañ yool bépp sax kon lu jara jara moytu la suñu cheikh eh, jazakumullahu xayran kii dafa ne moom day tukki ci géej dugg ci gaal wala ci bato waaye xamul nag fu fu xibla bi féete te bëgg naa julli muy laaj kon nan lay jullee waaw ki war a julli ki war a julli moo xam daana ci géej moo xam daana ci jéer yi moo ci jaww ji fu ci man di ne julli jot mu bëgg a julli te xamul la dañ naan day nattale day nattale day nattale mooy day seet lu mën a sukkandiku daal ba mën a jàpp ne fii la lu mën a sukkandiku ba mën a jàpp ne fii la bu fekkee anam nga mu nekke mën na caa jublu xibla ca jamono ji muy tàmbalee mu jublu ca ci jamono ji muy tàmbalee bu fekkee anam gi sax mënu caa jublu xibla lu mel ni ku ne ci avion ku ne ci avion da ngay toog benn béréb rek fi nga xas toog fi nga fi nga mën a toog kon moom amut nattale koy nattale waaye bu dee koo xam ne nag euh, lu mel ne bato nit dana mën a taxaw seet benn genn wàll mu jublu fa bu nattalee fa jàpp ne mooy xibla bu fa jubloo bato moom dana wëlbatiku mën naa wëlbatiku wëlbatiku du ko yàqal dara bu wëlbatiku toon tam mu noppi yàlla dogal mu xam ne du woon foofa wala sax ci bato newut ci oto newut ci dara daa nekkoon ci àll nii rek àll boo xam ne gindikootul ba mën a xam fan ma xibla seetlul boppam rek góor-góorlu daal ba jàpp ne fii la fam jàpp ne foofa la bu jullee ba noppi ginnaaw bu xamee ne du woon foofa it du tey julli ga baax na du te julli ga baax na ndax jublu xib la day tegee ci man ko man ko man nga nag mooy nga xam ko xam nga nag def na kem kàttanam ba jàpp ne fii la kon bu xasee julli ba noppi ca noona du ko du ko du ko defati du julli ga baax na bu xamoon ne itam du foofa it du tee du tee baax na dañuy wax ne bu doon màkka la nag biir màkka la dale nit ginnaaw ba moo xam ne fi mu jubluwoon te xibla moom dana julliwaat ndax daa jege ba ëpp foofu daanaka mënees naa wax ne sax dem ba mën a xam xibla ci biir Màkka day mel ne càggante bu ëpp lay doon waaye nag boo ko soree moom loolu mën naa bañ a doon bu dee ku nekkul biir Màkka nag moom bu defee lam man ba jàpp ne fii la ba julli ba noppi julli gi wér na bu xamaatoon ginnaaw bi ne du woon foofa itam du tey julli gi julli gi wér na Euh, yonent bi sallallahu alayhi mas naa def lu mel noonu ci ab xare euh, mu lëndëm mu xiin xiin ba xamatuñ xibla bi fu mu féete kenn ku ne julli julli ci anam wàll gam jàpp ne foofa la rek ñoom ñëpp sax noonu lañ def saxaaba yi kenn ku ne daa seet fa mu jàpp ne fa la xibla féete rek mu jullee fi biñ xëyee ñu bari gis ne ah ñun kat ndeke fi ñu jublu woon du woon xibla booba wax ko yonente bi waaye ne wax mu ne leen baax na ku nekk julleem baax na ndax ku ne ba waree julli def na lam man ngir xam ngir xam fi la féete kon bu defee lam man ba jàpp ne fii la ba jublu fa bu jullee rek julleem dana wér ginnaaw bu xamee doon foofu itam du tey julli gi na insha Allah jërëjëf Serigne kii moom day laaj mu ne lan mooy àtteb koo xam ne day jëflanteek bànk yi ci di fa lépp alal wala sax mu fay denc alalam waaw jëflanteeg banque di fa lépp wala di fa denc jëmmi lépp rek rek rek aayut jëmmi denc rek rek rek aayut waaye anam ya muy ame mën naa tax mu aay kon lépp boo xam ne bu doon danañ ko def bu doon banque dana leble te du ca teg riba ku leb banque bu mel noonu aayut am na banque yu koy def nag li ñuy tudde banque islamique yi banque yi tënku ci lislaam am na ñooñ bu ñuy leble duñ ca teg riba kon kooko leb leen dara new ci dénkaane it dénkaane goo xam ne da koy dénkaane rek la nga fa dénkaane moom ngay jëlaat ba tey loolu aayut ndax dénkaane da day mel dañ lay dañ lay dañ lay dencal dañ lay dencal bu dee banque yi jëfandikoo riba nag ñoom dañ koy tudde dénkaane waaye dëgg-dëgg du dénkaane dañ koo tudde nag bu dee ci àtte nag du càggeenu tur yi tur yi mooy jox mbir yi lañ doon du càggeenu mbir lañ ko tudde rek moom la waaye lam doon la lam doon ak lañ ko tudde mën naa wuute mooy ñi nga xam dañuy joxe seen xaalis ci bànk bu fa amee ab diir banque bi tegal leen ci dara loola du dénkaane ndénkaan ku ne xam na ne baatu ndénkaan ci boppam rek dafa dàqoon teg ñu la cee tegal dara dénkaane moom la nga joxe woon rek nga jëlaat moo tax loola ñoom dañ koy tudde dénk dénkaane waaye du dénkaane lam doon dëgg-dëgg mooy bor la rek bor la boo xam ne daa ànd ak riba mooy intérêt yooyu li ñu tuddee compte épargne compte épargne buñ cay teg dara loola bor la bu ànd ak riba bu nit ki di jël bu banque leb bu la banque lebalee booy fay teg ca dara bor la bu ànd ak riba boo xam ne banque bee la ko lebal fële nit kee lebal banque bi kii épargne moo lebal banque bi mu ànd ak riba ki leb nag ñu teg ci riba itam banque bee ko lebal mu ànd ak riba waaye yépp bor yu ànd ak riba la bor bu ànd ak riba nag daganut kiy leble daganut ci moom muy leble bi ca teg riba kiy lebit daganul ci moom muy leb di ca taribaa am ci daganut ci kenn ci ñaari ñi ko séq bu demoon nag ba kiy leb moom dafa sës ñàkk pexe amul meneen pexe te lim aajowoo lu munta ñàkk ci moom la te mënu koo amee neneen boobaa day dugg ci àtteb ku sës ku ñàkk pexe ku sës ku ñàkk pexe danañ ko may luñ ko tere woon ngir ñàkk pexe ga ak sës ga waaye ci cosaan moom bor boo xam ne riba da caa am kenn waru koo leble kenn waru ko lebit kenn wërta leble di ca teg dara kenn wërta lebit di ca teg dara lu ci am rek riba kon li ñuy tudde ndénkaan bu fekkee la nga la nga fa denc rek ngay jël loola banque boo mën di jëflanteel tam demee noonu dara new ci banque bu mu mënti doon bu dee lam la lebal rek nga koy fay dara new ci waaye bu dee nag dalaa lebal nga di ko fay lu ëpp lam la lebal loola riba la bu dee dang ne danga faa dénkaane ba noppi te bu lay jox jox la lu ëpp la nga fa dénkaane woon ba tey riba la sëñ Cheikh kon mi ngi aju ci euh, na muy amee waaye jëmmi dénkaane rek ak jëmmi leb rek moom dara nekku ci bu fekkee daree riba àndu ci ahsanallahu ilaykum kii tamit meneen mbokk la muy laaj mu ne lan mooy àtteb koo xam ne dafa woor ba noppi di saaga kenn wala mu di ko xas wala mu di ko wax lu juunu loolu day moo li ñu waxoon léegi ci ki woor di sàcc rek ñooyam ndax waxoon nañu lépp lu mën doon lu ñuy tere rek lépp loo xam ne ak mooy yàlla la ki war da ko war a moytu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne koo xam ne woor du tee du ko tee di wax lu waxuwul du ko tee di def lu defuwul kooka yàlla amul soxla ci ak ñàkk lekkam ak ñàkk naanam mooy li ñu doon wax ci njariñ lam cay jële ak tuyaaba jam ñu jële ci koor gi man na ca ñak lu bari man na ñak lepp sax waye du tay nak koor gi wér waye nit ñi li ñu war a xarit moy mo xam julli la mo xam war la mo xam jëf ju man di doon li ci wara ñor li ñu ci wara ñor doonul rek mu wër ndax mu wër rek moy ñu nal def nga ko kèn du na defaat lool moy wër bu ñu xey wër lool rek lay firi kèn du na defaat ko ndax def nga ko waye lool kessé wër ta taxajuk julit bi buy julli wala muy war wala muy def lenen lu man doon waaye la ko war a tax a jóg mooy am ci ngërëmul yàlla am ci pay te ngërëm la ak pay ga nag am na yu yu muy boole ca jëf jëm mën naa tax mu ñàkk ko mën naa tax mu ñàkk dañuy jàngale moo tax nu koy faral di misaal ci ñuy jàng di leen ko misaalal di leen wax ne mu ngi mel na rek kuy def kuy def compos composition ixtibaar ku def ixtibaar def na ko kenn du ne ko defoo ko kenn ne ko da nga ko defaat waaye ñi def ixtibaar ñëpp yemuñ yemuñ luñ ca jëlee am na ku def am 17 ki am 18 ki am 15 am na koy am 3 3 am na koy am 0 def na ko ndax kon def gi am na njariñ def kese kese kese taxut a taxut ñuy wax waaye li am solo mooy def ko defin wuy tax nga jëlee ci njariñ defin wuy tax ñu jëlee ci njariñ nag bu dee koor moo ñu moytuwaale lépp loo xam ne. lu mën a wàññi yool bi la lu mën a xañe yool bi la di woor ba noppi di xas nit wala di saaga nit wala di tooñ tooñ gu mën di doon rek day xañ nit ki ab yool ci la yonent bi sallallahu waxe ne kuy def loolu yàlla amul soxla ci ñàkk lekkam ak ñàkk naanam waaye yàlla lam ko sant mooy mu góor góorluwaale ci biir koor gi ba defaraale ay jikkoom defaraale ay jikkoom ba man faa jëlee ak ragal yàlla gi mu bi muy santaane koor bokk na ci jublu ga ñu mën caa jëlee ak ragal yàlla sëñ Cheikh. jërëjëf sëriñ Cheikhuna kii tamit day laaj mu ne ndax dagan na ci ku woor mu laal parfum. waaw loolu de dara newu ci ku mën naa laal parfum ku mën naa laal parfum mën naa xeeñoo. xet gu neex lol dara newu ci dara neeku ki day laaj mu ne dafa bëgg ñu tekkalel ko ñaari laaya yi laaya bu ñëkk bi suñu borom da ci wax ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha beneen laaya ji suñu borom wax ci ne la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Mhm, sëriñ Cheikh ñaar laay yooyu laay ju njëkk ji mu ngi saaru almaida jeneen ji nekk ci saa ñaar yi ci des nekk ci saaru azumar ji muy waxe ne yàlla du jéggal du jéggale bokkaale du jéggale bokkaale dana jéggal lu ko yées nag lu ko yées dana ko jéggal ku ko soob loolu moo nekk ci sóoratul maida ñeent fukkeelu laay ak juróom-ñett yàlla du jéggal du jéggale bokkaale waaye dana jéggal ku ko soob lu ko yées lu yées bokkaale mooy beneen bàkkaar bu mën doon rek foofu boroom xam-xam yi dañoo wax ne lam jublu ci du jéggale mooy du jéggale buñ ko tuubul buñ ko tuubut ku tuubut la jubloo wax foofu ku tuubut ku bokkaale te tuubut yàlla du ko ko jéggal waaye beneen bàkkaar bu mu mën di doon bu ko tuubul itam yàlla mën na ko ko jéggal loolu jublu ci laay jooju kon mi ngi aju ci kii tuubul ñaari laay yii di ñëw nag moom da ciy digle tuub da ciy digle tuub di wax ne ku tuub nag lu mën di def bu tuubee ma jéggal ko laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru dunuba jamia bu leen naagu ci yërmande yàlla naagu ci mooy jàpp ne du ngeen ko mën a amati sàggana sàggana sàggan sàggan ba jàpp ne daal yàlla yow du la yërëm neen bu leen def noonu ndax yàlla bàkkaar yépp lay jéggale teg ci na ngeen tuub kon mooy bàkkaar yu ñu tuub lay wax foofu teg ci ne wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al adabu summa la na ngeen tuub dellu ci seen ci seen boroom te euh, déggal ko kon ku tuub lay wax ne moom lu mu mën di doon ku ko tuub mu jéggal ko fële nag dafay wax ne ku tuubut nag lu mu mën di doon lu dul bokkaale ba tey yàlla mën na koo jéggal ci coobare boppam waaye bokkaale nag moom yàlla moo ne du ko jéggale moom ci coobare boppam nit ki da koy tuub rek mu jéggal ko waaye lu nit tuub nag lu mën di doon moom mu jég mu jéggal ko kon la ca maa maida moom ci bu tuub amut ca lay wax li ci zumar nag ci tuub lay wax moom ci tuub moom lu ñu tuub rek yàlla dina ko jéggale ak lu ma di doon lu ñu tuubul nag bu dee bokkaale moom moo ne du ko jéggale bu dul bokkaale nag moom moo ne mën na koo jéggale kon loolu moo wuutale ñetti laay yooyu walla laay ji ak ñaari laay yele sëriñ cheikh jazakumullahu xayran kii day laaj mu ne lii al cheikhu xalil wax ci téeram bi di al muxtasar ne wa fi littifaaqi ala salbi bihi in sunia taraddud muy laaj loolu luñ ci jublu fii ci ci ci ci buntub laab lay wax ci xorom it lay wax xorom xorom si xorom lay wax ne bu fekkee nit da ca dugal loxoom mooy nit da koo liggéey ama xorom day day juddoo rek ci ndox ndox ndox mu am xorom rek seey doon xorom loola nit defu ca dara bu ko nit jëloon nag defaat ci dara soppi ko ni niñ koy def niñ koy defee nii nii buñ koy defar di ko dugal ci ay ay paquet ay nàngam am na duñ ciy def leneen loolu mooy kon buñ ko defee noonu loolu lay wax ne bu ñu ko defee noonu ba noppi nag tàbbal ko ci ndox ndax xorom soosu dana xaj ndox moomee ak laabam ak mën a laabalam ndax kon ndox moo xam ne tàbbal nañ ca xorom su nit liggéey ndax ndox moomee dana mën a laabal ba léegi loolu lay wax ne dañ caa wuute loolu jub la wax foofu dañ caa wuute xorom soos nit da koo liggéey ba noppi ñu tàbbal ko ci ndox ba mu soppi ko ndax ndox ma dana nekk lu mën a laabal ba léegi wala du ko nekkati dañ caa wuute ñii ne du ko nekkati ñii ne ba léegi da koy nekk ndax bu dee xorom fa mu dëkk moom fa mu juddoo rek nga xam ne kenn jëlee ko fi kenn defu ci dara moom loola bu soppee ndox ma itam du yàq dara ndax daa dëkk ak ndox ma waaye biñ ko liggéeyee ba nag tàbbal ko ci ndox nag foofu la wax ji nekk loolu lay jub la wax foofu ñii ne dana day tax ba ndox mi du nek du la du mana la balati am ñone du tay ba legi ndox mi di mana a laabal dañu seex kii day laaj mu ne lii sunu borom wax la bëgg ñu firil mako inna hadha akhi lahu 99 na'jatan wa li na'jatun wahida fa qaala akfilniha wa 'azzani fi al muy laaj ne lii daal la bëgg ñu tekkil ma ko. Hmm, sëñ Cheikh loolu lu mat euh, juróom-benn laaya juróom-benn laaya ci saaru Daawud dañ koy Daawud dañ koy wooye saaru saar wala saaru Daawud juróom-benn laaya li tàmbalee ci laaya ñaar fukkeel ak benn ba ci ñaar fukkeel ak juróom-benn day nettali ab xew-xew laaya yooyu dañuy nettali ab xew-xew boo xam ne yàlla da ci doon jàngal Seydina Daawud. Seydina Daawud àttekat la woon yàlla di ko jàngal ni kuy àtte war doxale te bokk na ci li ci gën a fés mooy bu boole amee bala ngaa àtte na nga déglu ñaari wàll yépp ki boole ak kiñ boole ki boole ak kiñ boole waaye boo yemee ci déglu kenn ki rek atte sab atte mën naa mën naa des Seydina Daawud nag lu mel noonu da koo daloon lu mel noonu da koo daloon waaye dafa mel ne loolu yàlla yabaloon ay malaaka ngir jaare ci ñoom jàngal ko mu yebal ay malaaka ñaari malaaka yoo xam ne dañoo buñ ko mënee wax day mel dañoo tëb dañoo tëb dañu tepp sàkket ba wala seng ba wala mir ba fek ko fami bero di jamu yalla ñu tepp fek ko fa kenn ki boole morom ci nako ki sama ki la waye nak dama am euh, jurom ñen fukk ak jurom ñenti nak jurom ñen fukki nak ak jurom ñent mom da ko am man ma am wenn nak rek ba nopi nak mu bëgg jël sama wenn wi ma am boole ko ñen jurom ñen fukk jurom ñentam mu taxawuma ma temm ne da ko bëgg def kenn rek moo wax Seydina daw daal di àtte ni nga ah, kon tooñ na la kon tooñ na la ginnaaw mu xalaataat nag xam ne xam ne li mu def du noonu kuy àtte doo déglu kenn rek ndax kenn rek mën laa wax lu ñàng ñàng ñàng loo xam ne moom la nga cee mën a teg rek mooy kon tooñ na la waaye boo déglu woon nag ki mu wax lu ñàng loolu bu la waxaatee mën naa am nga jëli ci leneen yàlla loolu la ko doon jàngal foofu bi mu xalaataatee nag mu xam ne juum na mu jéggulu yàlla jéggal ko ne ko nak boy àtte na nga àtte ci mandu ma nga tambalé ci hal ataka nabaul iz tasawwaru al mihrab fofu la tambalé ba fa ghafarna lahu dhalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab ya daawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi'il hawa kon ci teunk ci teunk lolu la mo yàlla mo don jàngal sayyidina dawud ne kuy àtte da déglu ni nga dégloo ki boole loolu nga war a dégloo itam kiñ boole waaye boo dégloo ki boole rek àtte man ngaa juum loola nag da ko ko wone ci yebal ay malaaka ñu ñu joué rôle boobu ñu joué rolu ñaar ñuy boolente bi mu ko àttee nag xelam dellusiwaat mu xalaataat xam ne aw doxinam doxin wu njuumte am na ci kon am jàngale la mu yàlla don jàngale jang Seydina daoud mi nekkoon attekat ngir buy atte muy déglu ñaari wàll yi jote yépp jeuf serigne Cheikhuna ki day laaj mune yàlla sunu borom dafa wax wala basata allahu rizqa li ibaadihi la fi l ard walakin yunazzilu bi qadarin ma yashaa innahu bi ibaadihi xabiirun muy laaj laaya jooju lu muy tekki mhm. laaya jooju yàlla da ciy wone ne euh, wërsëg wërsëg wi moo koy joxe bu ko sooboon mu xëppandoo nit ñi wërsëg mu xëppandoo wërsëg wàcceendoo wërsëg wu bari waaye bu ko defoon nit ñi dañuy beew dañuy bew wala basata allahu rizqa li ibadihi la baxaw ard bu fekkone da leena a xëppandoo yu rek dañuy bew waye nak da koy wa da koy wacce nank nank da koy wacce nank nank loolu yërmande la kon ci mom day wone yermadem du mu yërëm nit ñi ndax bu ñu bari ci nit ñi du ñëpp waaye ñu bari ci nit ñi bu ñu leen joxandoo woon wërsëg sonnuñ ca defuñ ca dara rek mën nañoo bew waaye nag mu am fu mu koy jaarale foo xam ne ndànk-ndànk la koy def loolu yërmandeem da ko cay da ko cay feeñalaale wa lak yunazil bi qadari ma yasha innahu bi ibadihi xabirun basir dafa xam ay jaamam yërëm leen tax muy doxaleek ñoom noonu ngir bañ ñu bew hmm. kii tamit day laaj nee na benn waaye ngi ni boo xam ne dafa yëgle ne dañ koy may soxna tey ci ngoon nee na ña ko war a fas fàtte ko fàtte def fas gi moom mu yaakaar ne sëy bi mat na maanaam fas gi am na ba tax mu dem jonjoo ak soxna si yàlla dogal ab ëmb bàyyikoo ci muy laaj ba xam ëmb boobu luy àtteem ci lislaam xam naa ba muy sëy ak moom jàpp dafa jàppoon ne sëy bi takk nañ ko ba noppi mm-hmm. ndeke takkuñu ko dañ ko bàyyi mm-hmm. loolu kon mooy rek e, ñaar ñu jote ñaar ñu séq góor ak jigéen séq te ba ñuy séq jàppoon ne ab sëy bu wér dox na seen diggante kon jàppoon nañ ne li ñuy def sañ nañ ko ndax ab sëy bu wér dox na seen diggante bu demee noonu kon dañ naan lënt lënt am na ab sëy doxu fi woon ab sëy doxu fi woon waaye ñoom loolu lañ jàppoon te lañ jàpp teg nañ ko fenn teg nañ ko fenn ndax jàppoon nañ ne danañ ko def ba ñëpp ànd ci ñu jàpp ne kon def nañ ko ndeke defuñ ko kon mooy jàpp nañu ab sëy bu wér mi ngi doxoon seen diggante te ndeke doxu fi woon bañ seq loolu waruñ ko woon seq kon waaye dañ naan nag kon lënt moo fa am lënt kon ni ñuy def mooy ginnaaw xas nañ seq te waruñu woon seq rek jigéen ji day laablu day laablu mooy day day mel ne ku jàpp yidd daal day mel ne ku jàpp yidd laablu ba gis baax walla bu dee dafa tollu diggante laablu ba mucc bu muccee nag ñu dal koo may kuñ koy may dañ ko ko may ko ko mën a may moom waaye na laablu ba mucc doom jayit dañ ko koy askanale doom ja dañ ko koy askanale dañ naan mooy baayam ndax lënt li gi ci nekk moo ko waral bu fekkoon ne lenn lënt amu ci duñ ko duñ ko ko askanale waaye lënt li gi ci am nag moo tax liñ jàppoon ne sëy bi am na te fekk amutoon loolu mooy tax dañ ko koy askanale waaye nag dana laablu ba mucc ginnaaw dafa tollu diggante bu muccee nag ñu mën ko koo may sëñ Cheikh jazakumullahu xayran kii day laaj mu ne laaya ji sunu boroom wax na yastaftuunaka qulillahu yuftikum fil kalaala muy laaj laaya bi lu muy teg laaya jooju moo mujj ci saaru an day wax itam ci miraas ci miraas la aju saaru an-nisaa li alquran wax ci àttee miraas li ci ëpp ëpp ëpp ëpp nekk ca njëlbeen ga ak ci mujj mujj gii nag da ciy wax miraasum ki ñuy tudde kalaala kalaala qulillaahu yuftikum fil kalaala kalaala mooy ku faatu te bàyyiwut doom walla sët buy doon bàyyiwut itam baay bàyyiwut baayam bàyyiwut doom walla sët kooku mooy kalaala kooku la yàlla di wax mbiram mu kalaa boo xam ne dafay bàyyi nag ñu bokkal ñu bokkal mooy ak ay mag ak i rakk wala ay mag wala ay rakk la fi bàyyi ñu mbokkal ndey ak baay wala ñu mbokkal baay rek laay ci ñooñu rek lay wax mooy ku fi jóge kon bàyyi wu fi doom bàyyi sët bi donn bàyyi wu fi te bàyyi na fi nag ku mbokkal ndey ak wala ku mbokkal baay wala ñu mbokkal ndey ak baay wala ñu mbokkal baay dañuy doxale miraas sa moom laa ji di wax loolu ci gàttal mooy bu dee jigéen la fi bàyyi rek ju mbokkal bàyyi wala ndey ak bàyyi tamit kenn genn wàllu alal ji moo koy moom bu ci bàyyee ñaar wala lu ko ëpp buñ xaajee alal ñetti xaaj ñaar yi ñoo koy moom mooy bu dee ay jigéen bu dee góor la fi bàyyi ku mbokkal mooy jël lépp bu dee kenn mooy jël lépp bu ëppee kenn tam ñu bokk bu dee ay góor ak jigéen lañ góor ñi jigéen ña koy bokk waaye góor ñaar jigéen benn loolu mooy tënku li laaya ji di wax mooy laaya ji mujj ci saaru annisa sëriñ Cheikh ahsanallahu ilaykum kii day laaj mu ne lan mooy atteb koo xam ne daa war a sangu farata fàtte ko ba jàpp jot waaw loolu tam day sangu rek day jàpp jàpp jot na jàpp daal di sangu bu julli jotee mu julli dara newu ci muy janaaba ak koor séquñ dara séquñ dara li am solo mooy la waral janaaba ba ba muy am na fekk jàpp jotagul na fekk jàpp jotagul waaye sangu sangu gi muy sangu moom bu jiitoo jàpp di jot rek mu doon ginaaw bi jàpp jot ñoo yem lu amul jeexit ci koor gi kon koor gi koor gu wér la dara newu ci ginnaaw daal jàpp na moom ci waxtu ba mu war a jàppee ñàkk gee sangu nag lu yàq dara ci koor gi mën naa sangu ba mu jàppee ba noppi na sangu julli jot mu julli bu biddante woon sax ba bët set ba jant bi fenk sax muy doori sangu itam taxul mu yàq dara ci kooram sequñ dara ñoom ñaar insha allah jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne lan mooy àtteeb koo xam ne dafa sol yére yu am sobe jullewaale ko bi mu jullee ba noppi nag mu door a fàttaliku ne yére yi mu sol kante ke daa am sobe waaw euh, laab li ñuy wax laab daa bokk ci sart yi tax jullee wér laab laab gi ñu xam ci nit ki booree jàpp fekk mu jàpp booree sangu fekk mu sangu waaye laab ci yaramam ci jëmmam ak ci fimuy jullé ak ci yéréem baña am sobe yaramam baña am sobe sobe bañ caa taq yéréem ay yéréem sobe bañ caa taq béréb bi muy jullé tam sobe bañ caa taq loolu sart la buy tax julli wër waye sobe so suñ baña tak ci yooyu nak dañ naan fimuy muy sart moy na fekk mom fatte wuko te mën na ko itam mën na ko mën na mën naa fexe ba du taq mooy sobe si mën na koo dindi te yëg na ko fàttewu ko euh, xelam dem na ci mu xam ne sobee ngi ci te mën na koo dindi bu demee na kon na ko dindi julleem door a baax bu ko dindi wut julleem du baax bu fekkee nag da ko yëgut da ko yëgut ba julli ba noppi door a xam ne sobe takkoon na ci yéreem walla ci yaramam wala ci béréb bi mu doon jullee boobaa julli ga baax na julli ga baax na ndax da dafa àndut ak fàttaliku akuk yëg julli ga baax na bu ca mënutoon dara it xam na ko waaye mënu ca dara mënu koo dindi itam ba tey julli gi danay baax kon fii julli gi dana baax waaye dañ naan nag bu fekkee waxtu wi bi muy bi muy fàttaliku ne moom ndake bi muy julli julliwaale na ak sobe fekk na wax julli na ba noppi waaye nag waxtu julli yi moom génn génnagut jeexagut waxtu julli bi jeexagut kon danañ sopp mu julliwaat bu julliwaat itam du tey baax na dañuy sopp sopp mu julliwaat bu fekkee bi muy fàttaliku waxtu julli bi génnagut bu fekkee mu génn nag moom amul luñ ci soppati bu génnagut nag sopp nañu mu julliwaat waaye bu julliwaat itam julli gi mu julli woon baax na sëriñ Cheikh kii day laaj mu ne lan moo wutale jaarub or ak lu dul jaarub or ci sharia li leen wuutale day xam naa mi ngi aju ci euh, góor gu koy jëfandikoo bu dee jigéen moom sañ naa jëfandikoo jaarub or sañ naa jëfandikoo beneen jaaro bu xaalis walla beneen sañ na ko takk bu dee góor nag sañu wuta takk lenni or góor sañu ta takk lenni or suñu ta jëfandikoo lenni or suñu ko takk waaye sañ naa takk jaaro xaalis seen wuute foofu lay feeñe bu dee jigéen moom amut wuute jigéen lim sañ ci or sañ na ko ci xaalis sañ na ko ci leneen waaye góor sañut ci or dara moom ci di ko takk waaye sañ naa takk nag jaaroob xaalis boo xam ne euh, bariwut lool lu mel ne tolloog ab dërëm dërëm bu ñu naan xaalis nag mooy xaalis yi ñuy li ñuy tudd xaalisu ngurut mooy yi ñuy tëgg di ko takk bu ci tolloog ab dërëm loolee euh, góor sañ na ko takk kon wuute na wuute na wuute nañ foofu mooy góor sañ naa takk jaaroob xaalis te sañu te takk dara ci or bu dee leneen lu dul xaalis du or it ci boroom xam-xam yi am nañu jàpp ne góor moom sañu te takk leneen lu dul xaalis rek am ñu ne nag sañ naa takk leneen jaaro weñ walla jaaro përëm wala yooyu sëñ na koo takk waaye or daal moom ñëpp dëppoo nañ ci ne sañu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo génn téye or ak sooy lu ñuy wax sooy muy suwa yëkkati leen ba nit ñu gis leen mu ne leen yaar yii dagan nañ ci jigéenu sama xeet wi waaye araam nañ ci góoru sama xeet wi ci lañ xamee ne lépp lu aju ci or góor sañu koo takk waaye nag sañ naa takk xaalis am nañu ne sañ naa takk yeneen yi itam yu dul or du xaalis sëñ Cheikh hmm. kii day laaj mu ne ndax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ci charte laab euh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deesu ci sart laab deesu ci sart laab laab yi ñu koy sart moom xamees na ko mooy julli gii julli gi ñu xam ak wër kaaba gi ak téye ab kaamil yooyu lañ lañuy sart laab muy ku yorutum njàpp mu njàpp ku sangu waroon mu sangu lu génn loolu sartuñ ci làpp sartuñ ci laab waaye nit ñi nag ci seen coobaree bopp ak seen tànn bopp ak seen yëg-yëgu bopp ñoom léeg-léeg ñoom ñu sartal seen bopp moo ñu ñu teg ko seen bopp ñoom ñu ne ah man de xam naa ne julli ci Yonent bi sallallahu ci laab waaye man nag man bala ma ko def damay laab loolu am na ñu ko doon def ci borom xam-xam yi ak ñu baax ñi waaye loolu seen mbirum bopp la waaye du ab àtte du àtte bi yoon boo xam ne ñëpp dañ cee war a tënku seen mbirum bopp la mu ñu mu defal seen bopp. nit nga xamee ne am na ñooñ mën nañ ne wala ñoo jàng xasiida dañuy laab te du sart ci jàng xasiida nit sañ na jàng xasiida te laabut waaye nit sañ na ko sartal boppam moom ne man bala ma jàng xasida damay laab imaam Malik da da ko daan sàttal boppam moom ne balaa jàngale xadiis day laab te loolu du àtte du àtte bi yoon boo xam ne ñépp ci war a tënku waaye mbirum boppam la loolu moom mën naa nekk ci ñu baax ni ci seen yëg-yëg seen tolluwaay seenu yooyu mën nañ cee sukkandiku ñoom ba sart ci seen bopp ñoom bala ñoo def nangam ñoom day fekk ñu laab waaye loolu du àtte bi yoon boo xam ne yooyu euh, ñëpp dañ ciy tënku bu dee atteb yoon bi tënk ñëpp moom li nga xam ne laab mënu caa ñàkk mooy julli ak wër kaaba gi ak téye ab kaamil foog naa yooyu euh, mooy yi nga xam ne nit sañu koo def moom te laabul sëñ Cheikh jërëjëf sëriñ Cheikhuna kii day laaj mu ne lan mooy ngëneeli julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci yonente bi julli ci bi dañ koy wax nii rek waaye mooy ñaanal ko ñaanal ko lay firi ñaanal ko ñaanal yonente bi lay firi ndax wolof moo naan julli rek waaye bu ko neexoon ba ñu wax julli moo naa wax ñaan rek moo gënoon a jub ndax bu dee baatu araab bi moom ci arab benn baat bi day firi assalaa ci arab cosaan la ñaan la daan firi ñaan bi lislaam ñëwee nag jox ko meneen maanaa meneen maanaa mu dolliku ci maanaam mi fi nekkoon maanaam ñaan meneen maanaa dolliku ci nag muy julli gi ñu xam wolof daa waroon nag buy wax julli gi ñu xam mu ne julli waaye buy wax la ñuy defal yonte bi nag mu ne ñaan ndax ñaan la waaye nag nee na julli bu ne julli nañ xam ne ñaan la julli yonte bi mooy ñaanal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal yonente bi lu am ngëneel la lu am ngëneel yàlla moo ko digle wax ne da koy def moom yàlla dane inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabiy yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàlla moo ne yàlla ak i malaakaam dañuy def salaatu ala nabi bu dee yàlla kenn du ko tudde ñaan kenn ko tudde ñaan waaye mooy kay ñaan la muy ñaan da ko koy defal yàlla bu ne yàlla day ñaan kon mooy day def day def lañ cay ñaan da koy defal mooy kon li ñuy ñaanal yonent bi yàlla da koy defal moom bu dee malaaka dañ koy ñaanal niñ koy ñaanale noonu kon ñaanal yonent bi yàlla da moom da koy def malaaka yi di ko def mu ne yi dee leen ko def yéen itam yéen ñi gëm kon lu am solo la lool fooguma ne bari na lu mel ne moom loo xam ne yàlla daan dama koy def na koy def yéen itam fooguma ne bari na lu mel noonu bu fekkee am na itam kon lu am ngëneel la yonent bi itam wax ne koo xam ne ñaanal na ma benn yoon yàlla dana ko ñaanal fukki yoon yàlla dana ko ñaanal mooy yàlla dana ko defal la ñuy ñaan kon loolu ngëneel la julli ci bi kon njariñul kii ki koy def ci boppam la ñaanal yonent bi ki koy def njariñam la moom ndax yàlla da ko cay defal la bëgg moom it am fu mu waxee ne ku ma ñaanal benn yoon yàlla ñaanal ko fukki yoon ba noppi wàcceel ko wàcceel ko fukki ñaawteef mooy fukki bàkkaar teggil ko teggil ko fukki bàkkaar kon lu ama am solo la muy di ñaanal yonent bi sallallahu alayhi ñaanal ko nag anam guñ ko defee gi ci gën a simple xëy na mooy ñu ne sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam wala nga allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim loolu bu gàtt la te ñaanal ko la euh, sëñ bu mag bi sëñ bu mag bi euh, fooguma fooguma ne fooguma ne am na kenn ci àddina ku ko ëpp léer lu mu ñaanal yonent sallallahu alayhi wa sallam fooguma ko fooguma ne mas naa am mas naa am ku ñaanal yonte bi lu toll ne lim ko ñaanal moom fooguma ko am mbindam fu mu ko tuddee lu mu jege jege jege bu tuddee tuddaat tuddaat fu mu ko mën di tuddee dina ko ñaanal du yàkkamti ba fàtte koo ñaanal loolu kon lu am solo la rawatina ci ab taalibe bu dee roy ci sëñ bu mag bi nga xam ne foog naa ne moo ëpp moo ëpp lu ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne lan mooy àtteeb koo xam ne day jël galaas di seral bopp bi ci bëccëgu weeru koor ngir tàngooru metti dara newu ci dara newu ci ku tàngooru metti ci moom tam woor mu jël galaas teg ko ci boppam dara newu ci mu xëppoo ndox ngir feex dara newu ci yooyu yëpp dara newu ci yooyu yëpp dara newu ci koor am natt la bu yàlla nattu nit waaye nag du am mbugal mu ngi koy teg du am mbugal koo xam ne diis na ci moom wenn di e, genn diis gi mën na ko woye falal mën na ko woye fale nam ko mane ci kaw mu bañ a mu bañ a yàq kooram bu demoon dem sax nag ba da ko mënut yàlla teggil nag ko teggil na ko bu dee nag mën na ko waaye dafa diis ci moom diisaay ba lu mu ci mën a woye fal te du àgg ci dog kooram sañ na koo def sañ naa euh, na fekk nag mu demee noonu waaye bu mu doon koo xam ne rek nag dafa dafa tànn dafa tànn rek noflaay dafa tànn noflaay rek dafa dem ba yëg ba yëg diis saay dafa yëg coono dafa yëg metit mu jéem a woyofal loola bokkute nag koo xam ne moom dafa tàmm rek noflaay bi koor daal moom fas ci yéene def lenn lu koy sonal booba daanaka mooy fas yéene def lenn lu koy amal njariñ day tëdd rek euh, loolu amul solo waaye ku dem nag ba ab coono ak diisaay dab ko mën naa def lu ko woyofal te bañ àgg rek ci dokkooram sëñ Cheikh jërëjëf Serigne Cheikhouna ci tontu yu leer yi kii day laaj mu ne lan moo tax ñuy tere woor bisu ajjuma moom képp seppi ko moom képp di ko wor waaw tere nañ ko de tere nañ kuy jagleel kuy jagleel koor ajjuma mooy di dàkk ajjuma di ko woor loolu tere nañ ko yonent bi sallam tere na ko mas naa fekk soxnaam bisu ajjuma mu woor mu ne ko ndax woor nga démb ndax woor nga démb mu ne ko déedéet ndax danga nga woor suba ëllëg mu ne ko déedéet mu ne kon dogal kon dogal mooy kon gis na ne ajjuma ji rek la tànn di ko woor mu tare ko ko waxaat na it ne bu leen di woor bisub ajjuma lu dul ne dangeen ngeen ko booleeg bis bu ko jiitu wala bis bu ja kon mooy bu leen ko jagleel koor moom kese kon moom tare na ko lu lu war a tax mu tere ko boroom xam-xam yi dañoo cee seetlu ne mën naa am mën naa am mën naa am day bañ ñu jàpp ne dafa am ngëneel lum jagoo lu amul ci woor yeneen bis yi ñu jàpp ne daal woor ko dafa gën woor beneen bis walla bu yàggee sax am ñu jàpp ne day lu war day lu war ndax ginnaaw ajjuma am na ngeneel moom bisu ajjuma am na ngeneel nag ne woor bisu ajjuma moo gën woor beneen bis loolu kenn waxu ko mën naa am bañ nit ñi dem ba xalaat loolu bokk na tax mu leen koy tere mën naa am it bañ nit ñi dem ba ñenn jàpp ne dafa war woor ajjuma day lu war mën naa am itam loola bokk na ci tax mu koy tere waaye li am solo lépp solo foog naa rek mooy moom lu mu tere la lu mu tere la lim tere nag yonente bi lu muy digle mbaa mu koy tere yàlla lu muy digle mbaa mu koy tere moo xam xam nañ la tax moo xam xamuñ la tax waaye bu diglee daal dañuy jéem a def lam digle bu teree dañuy bàyyi lam tere moo xam xam nañ la ca nekk ba tax mu digle ko wala la ca nekk ba tax mu tere ko wala xamuñ ko fii nag am na ju waram xam-xam yu xalaat ne mën naa am bokk na ci li tax mu tere ñuy ber àjjuma di ko woor bañ ñu jàppoo ne woor ajjuma dafa am ngëneel gu woor beneen bis amut walla dem ba am ñu jàpp ne woor ajjuma day day lu war te ñaar yooyu yëpp boobaa day safaanoo ak li mu jàngale suñu seet jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne li ñuy tuddee wisaal maanaam nit ki woor ba dog jot mu continuer bañ a dog muy laaj loolu luy atteem ci lislaam ci koo xam ne da koo def ci biir weeru koor yi wala sax ci lu dul weeru koor Mm-hmm. wisaal mooy ki woor ba ngoon jot mu bañ a dog bañ a dog ñii ne bañ a dog ba xaddu jotaat lekku ci diggante bi ba xaddu jotaat rek la la lekkaat am ñu ne sax mooy dogut da ko far jokkaleeg bis ba ca topp nga xam ne bëccëg bii bëccëg bii la woor jant bi so mu bañ a dog ba bët seet mu mu wéyale koor gi nga xam ne ko ñaari bëccëg yu ma sëkk daal ak guddi gi dox seen diggante tagale na ko bañ cee lekk bañ cee naan loolu am na ñu ne mooy wisaal am ñu ne bu xaddee ci diggante bi sax waaye nag lu jiitu xadd bi lekku ci sax ba tey wisaal la mooy ba mu ba mu xëyee woor noonu la wéyee jant bi soow mu wëy bañ a lekk bañ naan ba xadd jot ci la door lekkaat ba tey wisaal la wisaal daal mooy jokkale jokkale lay firi jokkale jokkale koor jokkale koor lay firi yooyu bi sallallahu alayhi wasallam da koo tere da koo tere daana ko def moom waaye dafa wax ne man li ma man mënu leen ko li ma man mënu leen ko da koo tere ñi ci des yëmut ci tere ko waaye gis nan sax ni mu xiirtale nit ki ci muy xadd ki xiirtale nit ci mu xadd mooy daan dox digganteem ak muy jokkale ñaari fan yim du lekk ci diggante bi xiirtal ko ci mu xadd xiirtal ko ci mu yeexe xadd itam xiirtal ko ci mu gaaw a dog loolu lépp day war ne kon moom euh, bëggul nit ki di yeex a dog sax sàkkantumaa nag di bañ a dog ba ca ëllëg si kon lu ñu tere la lu yent bi tere la moom nag daanako def waaye dafa wax ne moom am na lim man mënuñ ko noonu bañ ko ko waxee loolu la leen wax li ma man mënu leen ko bokkuñ daal ay mbir am na yu ma jagoo loolu kon daa bokk ci yim jagoo waaye ab jullit dañ koy tere loolu li ñuy bëgg mooy bu dog jotee sax mu teel a dog bu timis di jot rek mu daal bu jant bi so mu daal di dog kooku kon kenn digalu ko mu yeex a dog sàkkantumaa nag di bañ a dog ba xat di jot wala sax mu bañ a lekkati ba ëllëg ëllëg saati loolu mu dañ koy tere kii day laaj mu ne dafa yore benn mbindaan boo xam ne moo koy liggéeyal ci kër gi waaye nag du woor nee na muy laaj ndax kon sañ na ko jox muy añ moom bu fekkee bu dee dafa am ngànt bu dee mbindaan mi dafa am ngànt ngànt lu ko may mu bañ a woor kon war na koo jox añ limi muy joxe añ njabootu bopam gi dul wor ngir ne tologuñ ci wor wala mom ci bopam bo amon gant wala wa kërëm am gant kon ku am gant mom war nañ ko jox lum jëfëndiko ku amul gant nak tay muskalaf mom kenn waru ko jox limi jëfëndiko ci bëccëgu koor bëccëgu koor kenn waru ci jox am muskalaf mu amul gantul wor tay ab abdulit ab jullit buy muskalaf ta amul ngant kenn waru ko jox lu muy jëfandikoo ci bëccëgub koor kenn waru ko def mo xam bindan la mo xam dom la mo xam soxna la mo xam bay la mo xam mag la mo xam rak la mo xam xarit la mo xam leneen kenn wërta jox ab julit buy muskalaf bu amul ngantul wor ci bëccëgub koor lu muy jëfandikoo bu ko defale bopam mo xam waye kenn waru ko kenn waru ko bu amee ngànt nag euh, sañ naa jëfandiku ki sañ a jëfandiku te ya ko wara jox lu mu kon da nga jox lu mu jëfandikoo hmm, sëñ Cheikh euh, ahsanallahu ilaykum ki day laaj mu ne ndax ab sey man nañ ko tak ci portable ci téléphone dal ah ci téléphone ci cosaan ci cosaan amut lu koy bañ ci cosaan ci cosaan waaye ci jamono nag tolluwaayu jamono ak li ciy xew mën naa tax ñu ne nañ ko moytu mën naa tax ñu ne nañ ko moytu tolluwaayu jamono mooy lan mooy jamono jii ñu toll jumtukaay yi ñu jëfandikoo ci jokkoo ku ne xam na liñ ci mën a def ci ay soppi ay coppi li ñu tudde manipulation manipulation yi ñu mën a def ci jumtukaay yi mën nañoo fexe ba ba ba ba waxloo nit jël kàddu nit mu mel na mooy wax fekk waxut ak sax nit ñi rek seen seeni seenu xarala am na ñu mën a roy nit ba bu bu waxee kenn du nattable ne mooma yónni daal mën nañ koy def ci mel noonu moo tax ba euh, borom xam-xam yi am na ci ñu ne jamono jii daal ak ni jamono ji bindoo fi mu ne nii nii nii nii moom waruñoo nangu loolu ndax li ci mën a dugg ci ay manipulation dafa bari ñi mën a roy nit ba kenn du nattable ne ñooma am nañ mën nañoo jëfandikoo itam. moo xam téléphone la moo xam leneen la xeeti jokkoo jumtukaay jokkoo yépp mënees na ko jëfandikoo ci anam yooyu mën nañ cee soppi di ci nax nit ñi ci loo xam ne ci loo xam ne wérut nit mën naa jël mën naa jël kàddug nit ba bu waxee kenn du nattable ne moom mën naa def pexe itam ba numéro bi mu lay woo boo ko xoolee muy numéro moom muy numéro numéro ka nga xamoon kon buñ ci sukkandikoo rek ak yéexewu xew ci ay tappaleek ay pexeek yu mel noonu yooyu mën na caa feeñ lu mel noona tax na am ñu ne buñ ko buñ ca sukkandiku waaye ci cosaan moom bu dutoon yooyu yëpp bu ci amutoon moom daas na ci mën a sukkandiku ndax maye mooy rek kii ñaan wane ne bëgg na kii maye wane ne ànd na ci maye gi maye na loolu rek loolu nag buñ bokkee toog jotaay kii ya ngi wax kii ya ngi dégg buñ bokkul toog jotaay itam waaye am na lu jot jottali wax ji loola daa jottali wax ji rek waaye wax jaa ci am solo waaye nag ginnaaw diggante jottali googu nag am na yu fi mën a xew ba ay coppi mën caa am ba ay wëlbati mën caa am moo tax ñu ne kon nañuy bokk jotaay rek moo gën a wóor moo gën a wóor gën a wóor la kon waaye ci cosaan moom maye ci téléphone lu lu mën a nekk la ci cosaan waaye li ci mën a amaat nag ci ay ay ay ay yàq ak i njublang ak yu mel noonu moo tax ñu ne moytu ko daal te jotaay di am moo gën jotaay di am moo gën ndax maye itam du caa génnu ki bëgg ki bëgguñu ñu ko rek mooy teewal boppam mën naa teewal boppam mën naa yebal ndaw Ya du caagi itam ki maye mo war tewal bopam mana na tewal mana man na naa yebal ndaw kon lu tay ñu daje daje war naa mën nekk daje war naa mën nekk te mo gëna woor jaar ci téléphone nak ak di am na ci ndax njublang yi nit ñi ma def légui ci téléphone yi man na tax ba nit man na njublang bañ may ko bañ bañ may ko doomi jambur wala bu may doomi jambur te yoonam neew ci amu ci benn sañ-sañ waaye njublang bu mayee ko te ñooñ duñ nattab la ne ka ko war a maye moo leen ko may ndax njublang yam def tax na ñu jàpp ne mooma ci téléphone mën na ko ci waaye jotaay nag loolu mënu caa am jotaay bi loolu mënu caa am moo tax daal ñu ne wóorut wóorut ca cosaan lu mënoon a nekk la Serigne Cheikh waaye jamono ji ak ni mu bindoo ak njublang yeeg yu mel noonu moo tax ñu ne liggéen daal na jotaay bi am ba ñu sukkandiku rek ci ay téléphone ndax wóoradi gi ci nekk ak leunt gi ci gi meuna andi ci jamono ji serigne cheikh jeuf serigne cheikhuna xamna ñaari laaj yi lañu mujjé jaaroon na fi sax way dafa mel dafa yittel moo ñu ñukoy bamu wat mu aju ci koor muy laaj ne lan moy atep ko xamne dafa gënt ci bëccëgu weeru koor mhm. ki gënt ci bëccëgu weeru koor koko koram mom dara siku ci kooram dara siku ci sangu rek lay def sangu rek sangu sangu farata sangu farata rek waaye koor gi moom dara sikku ci gént ci weeru koor ak lu mën xew du du du yàq dara ci koor gi bu amee lu génn nag nu sangu nu sangu farata ngir loola waaye koor gi moom dara yàqu yàquwu ci hmm. laaj bi ci topp mooy jëfandikoo pâte dentifrice ci koor jëfandikoo pâte dentifrice xëy na manes na ko nattale ak li ñuy wax socc bu tooy socc bu tooy am na ñu koy bañ am na ñuy bañ socc ci bëccëg weeru koor am ñu ne socc bu tooy lañuy bañ am ñu koy bañ waxtu sàngam lañ ko bañ waxtu sàngam dentifrice nag socc bu tooy mooy moom lañ koy mën a nattaleel xëy na ngir génn ci wuute googu yépp kon moytu ko moo gën moytu ko ndax wuute bu amee ñii ne baax na ñii ne baaxut ki bëgg lu gën a wóor moom day bàyyi liñ naan dana màtteeg du màtte bul jox sa loxo bu ñii ne day ñii ne day màtte ñii ne du màtte ku joxewut loxoon moom wóor na ko ne dara du ko màtt kon yu mel noonu moytu ko mën naa gën nit man na nak bu xadde ba nopi rek mom man na man na brosu bu xadde ba nopi man na brosu boba man nako ar ci lu ci lim bëgg aru ci walu brosu ndax brosu dana aare ci xet dana ar dana dana andi ciat itam ciat dana andi ciat dana aare ci xet bu xadde ba nopi brosu mom ciat ga ñew na xet gi nak mom mun a ñàkk ci ku woor ci ku woor mënut a ñàkk ci ku woor xëy na mën nay lax di ko léeg-léeg waaye mën nay moytu moom borosu ginnaaw wuute am na ci te wóorut mu def ko am lu jàll ci biir yooyu tax ba moytu ko daal moo gën a wóor moytu borosu ci bëccëg bi moo gën a wóor bu xattee ba nag borosu bu reeree bay tëdd borosu loolu ñaar yoon yi ñuy digle ci borosu daal daal nay ñëw cet gam cay war a jële dana ko ci jële xet ga mu ci aaroo nag du yomb waaye mën naa def leneen lu ko mën a aar ci xet gi di di di gàllax ndiku hmm. jërëjëf sëriñ jërëjëf naa ci tontu yi nga xam ne indi na ko ci laaj yi nga xam ne moo fi rotoon bàyyi ci mbokk yi kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm kon ñu bàyyi ko rek mu tàggoo. Ah, tàggoo gi xanaa di sant mbokk yépp ci teewlu gi. di ñaanaat rek niñ ko defoon ci njëlbeen gi lépp luñ fi wax te njuumte am ci ñu ñaan yàlla bañ ñu ko topp luñ fi wax tam juub te am njariñ itam yàlla dimbale nu ba man koo jariñoo di ndokkeelaat ñëpp ci koor gi nu dugg du ñaan yàlla nangul nu ko defal nu ci yiwuñ ci digg wépp wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu jërëjëf sëriñ Cheikhuna ñu lay sant bu baax ci turu daaira muqaddamatul khidma di ñaan suñu borom mu defal la tawfiq defal la wër ak guddu fan ak euh, dundu gu barkel ak xam-xam bu barkel te jariñe suba insha allahu ñu ngi waxtane euh xam lay serigne touba waxtan ci alquran moy sama way serigne fallu buso cierno moko wara taxawé ñuy batay ne wi dinañ ko jàllalewaat ci làmp Fall ci télé bi su minu minuit maanaam minuit mooy quart danañ ko tegaat su ko defee ku ko bëgg a toppaat mën koo toppaat foofu kon ñi ngi gërëm ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.